Bonjour. Ce jeudi 13 août 2020, je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro 165 du ministère la Santé et l'Action sociale qui a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1730 tests réalisés, 153 sont revenus positifs. Les cas positifs sont répartis comme suit. 47 cas par nos services et 106 cas de la transmission communautaire répartis entre communes ou quartiers suivants. Ziguinchor en a 11, Bignona en a 7, Mbour ana 7 Almadi ana 6 Saint-Louis ana 6 Kédougou 5 Kolda 4 Thiès Dakar Plateau 3 Kaolack 3 Khombol 3 HLM 3 Les Maristes 3 Médina 3 Ouakam 3 Dieuppeul 2 Dieuppeul 2 HLM Grand Yoff 2 Keur Massar 2 Liberté 2 Richard Toll 2 Tivaouane 2 Bentali Bopp 1 Bunkiling 1 Faysal 1 Diouloulou

et Vélingara 1. 49 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 51 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés ce mercredi 12 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé À jour, 11 740 cas ont été déclarés positifs, dont 7 572 guéris, 244 décédés et donc 3 923 sous traitement. Le ministère de la Santé et sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos service Le ministère de la Santé et de l'Action sociale réitère ses recommandations à l'endroit de la population sur les mesures de prévention individuelle et collective en insistant fortement sur le port obligatoire du masque ajusté couvrant le nez et la bouche pendant qu'on parle ou qu'on éternue. Je vous remercie de votre attention. asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeeku ci ministère la santé et de l'action sociale tey bésu alxames fukki fan ak ñett ci weer août biñ nekk ministère la santé et de l'action sociale jot na examen virologique yi may waaja lim ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer test yi ñu def téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoo ci positif ci ñooñu am nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñaar cas contact am nañ ci téeméer ak juróom-benn li ñuy wooyee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu mbas miite xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Ziguinchor am na ci fukk ak benn na am juróom-ñaar. mbuur am juróom-ñaar Almadi am juróom-benn Saint-Louis am juróom-benn Kédougou am juróom Kolda am ñeent Thiès am na ñeent Dakar Plateau am ñett kawlax am ñett Xombol am ñett Mariste am na ñett medina am na ñett HLM am ñett Wokam am na ñett jëppal am na ñaar Kër Massar am na ñaar Grand Yoff am na ñaar Liberté am na ñaar Richard Toll ñaar Tivaouane am ñaar Sicap am na benn Bounkiling am na benn Bopp benn Centenaire am benn Diouloulou am na benn Sacré-Cœur benn Bénn Tally am na benn Fanok am benn Cité Faysal am na benn Géejawaay am benn Grand Yoff am na benn Patte am benn Mékhé am na benn Mermoz am benn Ouest Foire am na benn Oussouye am benn Rufisque am na benn Yoff am benn Thiadiaye am na benn Touba am na benn Popenguine am benn Sokone am benn ak Vélingara am benn ñeent fukk ak juróom-ñeent si ñi ñu entré woon hôpital wér nañu te bés nikki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom-ñaar fukk ak benn ñu nga ci réanimation ñaari malaat ñàkk nañu seen bakkan bësu démb alarba fukki fan ak ñaar ci weeru ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa njëkk ba senegal wëññi na fukki junne ak benn ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ñoo xam ne jot nañu am doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar wér nañ si ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñett si hôpital yi walla ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñoo ñu génn àdduna yàlla jéggal leen te dugal leen àjjana mu ngi ñaan aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé l'action sociale di leen fàttali ngeen bàyyi xel ci sam sàmm euh, li ngeen war a sàmmonte ak kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy fàttali bos bu nekk ci kàddu yooyu nag ñu ngi toujours fàttali leen mbirum solum masque masque bi nga xam ne dañ ko sol ci anam yi ñu ko bëggee masque dafa war a muur bakkan ak gémmiñ nit ki suy wax wala suy tisoli wala suy soxat tamit masque bi war na fa nekk te doo ko dindi mu ngi ministère la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam